mu tambali nak ne muqaddimatun li aji jitu la man nayit muqaddamatun li luñu jital la li kitabil i'tiqadi ñel tereb pastef ba moyinatun bi aji dimbali bi aji dimbali li qari'iha iha ñal aji jangam halal muradi ci namel ga neena limay ñëk andi moy tereb tawhid bi manam xaj bi fété wo mbirum gëm yalla ak lu aji ci gëm ci l'islam bobu xaj mum lay ñëk way la tamakoy andi nak dama ciy indi ab muqaddamatu muqaddamatu mooy ab tàmbali boo xam ne soo déggee nañ la ca waxee dana la dimbali bu baax ba boo duggee ca lañ bëgg a wax dëgg-dëgg mën koo xam bu baax moo tax mu ne lii ab tàmbalikaay la boo xam ne dañ koo tàmbalee téereb tawxiid bi te yow miy jàng boo ko xamee dana la dimbali ba nga dégg bu baax a baax téereb tawxiid ba mu tàmbalee ci waxu ko mun naa sunu atte alxaq lii bay ko jox xel qadiyatun ab atte lay doon bila waqfin ci lu taxaw ala adatin ci aada aw wadhin wal ab jalaago jëlaagoo feeñ neena waaw atte xel dafa am atteb aada am atteb tur am atteb aada mom moy lo xamni mom lañ gis ci aada muy am ak amaat ba leneen lu am day bété leneen lu amat nek xoti bax koy xoti aada atteb tur nak man na do lo xamni yalla ko teural muy atte buñ teural man na do atte bo xamni mindi fi ci kaw suuf ñoko teural wala kenn ci ñom ñane yoy taxu moy wax atep xel lay wax atep xel nak moy lo xam ne xel mu sel mi ci bopam mo koy set rek ba até ko manam ben mu saxal ko mbam dakk ko ndax até mu boo déggé moy saxalal bir bir wala dakbir, mbir walis bir isbatu amrin li amrin wala nafyu amrin han amrin moy al alxukuma waaw saxalal mbir mbir wala dakbir, mbir walis mbir lolu moy até lolu nak bu ko xel dee def moom xel mee koy cher rek ba saxal loolu mbaa mu dàq ko li tax loolu ma taxam nag mooy boo duggee ci melo yi ñu wax ci wàllu sunu borom noonu lay demee day am melo yoo xam ne boo ko dee seet xel da koy saxal ci sunu borom du mën a ñàkk am xel am melo yoo xam da koy dàq ci sunu borom ni mënta am ndax ak manki la am loo xam da ko ciy nangu mu sax nangu itam mu dàqu loolu da ko gis ci biir wa tax mu ne <coughs> aqsaamu muqtadaahu xaaji la sàkku moom àtteb xel bil ci ak takk tumaasu def na leen ràññee ràññee mooy jeqee ci wolof yu gën yee yàgg dafa wax ne àtteb xel nag bi ñu lay wax nii moom mënees na ko takk ne mënta weesu ñetti xaaj ñi mu lay bëgg a wax wax ye ñoom xaaj yooyu al wujubu moo di ak war al ak akuk jomb al jawaasu akuk dagan alwujubu da cee jublu loo xam ne ak amam mënta ñàkk al istihaala mu jublu ci loo xam ne ak amam dafa jomb aljawaas mu jublu ci loo xam ne ak amam mën naa am mën naa ñàkk moom lay bëgg a firi sax ne fa waajibun waajib laa yaqbalu du nangu an nafiya dàq ga bi xaalin ci menn mbir waajib mooy loo xam ne bu ko xel mu sell mi xalaatee lu mu ko wëlbati wëlbati day wax ni lii moom mënta ñàkk am dong la mën a def ni ki amul yàlla amul yàlla lu ko xel mi wëlbati wëlbati xam ne yàlla mom am dong la mën def wama lo xamne aba bañna bañ sax haq lañ ci am xel al muxaalu moy lañ jombal ma lo xam lu ko xel mu sell mi wëlbati wëlbati ni loolu mom mënta am dafa jombu nek ñàkku yàlla a loolu mom mo tuddu lu jomb wasim na nga mandragalé ma la nga xamne qabila nanguna al amayni yari mbir ya jaayisan aji dagan ma li nga xamni bu ko xel mu sel mi xalaté ci wet ne waaw mën na am bu ko xalaté ci wet ne mën na ñak itam xamna xel mi nanguna na ak am aku ñakam niki doomi adama ji faatu tay ji ak aku ñak faatuum tay ji ay ak mbolim yu bare bare ci nga xam xamna xel nanguna am xel nanguna na lolu mo tudd jaayis kullun kep ci yoyu nak xusima seddelef nako li darori jëm ci darori manam lu jëru tu setantal moy darori man nga koo ko juk peng peng moy leer wan nadari ak ko jug setantal maanaam ñett yi loo xam ne kenn ku ci nekk nag mën naa doon loo xam da nga koy xam fa saasa te du jar nga ko setantal waaw mën naa doon loo xam ne faaw itam nga ko njëkk nga setantal ko njëkk door koo xam suñ band yu njëkk yi sax joxe woon nañ ci ci xaaj kenn ku nekk ñu leeral bu dee waajiba bu dee mustaxila bu dee jaayis leen lu ci nekk nu wax misaalum ba mu doonee lu fës lool ba jërul setantal ak ba xawee làqu ba jar setantal waaye nag bi bànd moom defe naa dañuy doy lool lim ci wax rek te far jàll tayil ko kon mu njëkkee awwalu waajibin aji jëkki warugar xalaaman ca ka nga xam ne kulli fa toggeef na ko jëf ku ñu togg jëf mooy al mukallaf rekk ki nga xam ne yàlla digal na ko tere ko hmm? mu makkanan mbir mu muy ko ñu min nazarin ci set set wala nga ne setantal ay ya'rifa modi mu xam allah yalla wa rusula ak yonante ya, bis sifati ci melo ya ma ci la nga xam ne nasaba sampana mom yalla al ayati màndarga ya wala nga ne tektal ya alayhi ci mom nee mu kallaf mom lu njëkk gàllu ci losam moy la ko war mu war ci farlu moy fexé ba xam na muy yalla mooy fexe ba xam na muy wérale gëmam ci lislaam ci gàttal wéral ak gëmam ci lislaam nag moom am na jàppandi lool ndax am na juróom benn yoo xam ne soo ko gëmee rek dana ëmb lépp li ñu gëm ci lislaam mooy yàlla ci boppam ak malaakaam yi ak téere yi wàcce woon ci yonante ak yonante yi ci seen bopp ak bispenc ak ub dogal de daañu tudd yeneen ci wàññ bi sax waaye boo ko dee seet yii moom ëmb na mboolem li nga xam ne moom lañu ñu war a gëm ci lislaam moo tax mu ne li njëkk war mu kàllaf mooy mu xam yàlla xam yonante ya ci kaw melo ya nga xam ne ca la ñuy tegtaloo maanaam yàlla daa am ay melo yoo xam ne dafa sax ci ak wàllam ndax melo yu mat la am melo yoo xam melo yu manqué la jomb ci moom am loo xam ne mën naa am ci moom mën naa ñàkk ci moom boo ñëwee ci yonante yi ba tey am nañ ay melo yoo xam ne mënta ñàkk ci ñoom am melo yoo xam ne du leen dafa jomb ci ñoom am loo xam ne ba tey ci ñoom mën naa mën naa ñàkk yëpp nag nee na nga xam ko ci nako mukallaf wara xame a lolu mo ñëk war ci loosu mukallaf wa kullu taklifin gépp kàllafe bi shartil haqq li nek na ci sartu xel maxal bulooxi ànd ak baalix ga bi damin ci deret aw hamlin wala ab ambu aw bi maniyin wala ci am maniyu aw bi imbati shahri wala ci sax kawarug naq aw bi tamaani hashrat wala ci fukk juróom ñet hawlan ci at dhahra yooyu feeñ lan modi di ak kalafé eh. ah, lan lañ lan nan lañ xamé ni kii mu kalaf la ba la war mag ñi moom mi nga mag la lay war na mom itam loolu nak bu dé ci at mu wax ji gëna wor ci fiqh malik moy lém wax fukki at juroom ñett yu goor muy jigen su ko amee te xelam nga xam doful deful dara kon légui kalafé na màndarga ci dess nak bokku na ca bu dé jigen, mu gis deret li ñuy wax baaxu jigen ñu koy wax régal manam mbërëg sax moy turu yàgg lolu bu ko jigen gisee na xamne legi dal nay don magum jëm li war mag ñepp war nako ko ya- sant nako lim sant ñepp te tambul nañ ko tuya ba ak wala mu ëmb ba jigen jigéen bu demé bu ëmb na xamne kon legi kala na wala muy goor wala muy jigen ñoy yemoo ko ci xamne am nga man yu ndax man yu goor dana ko am jigen dana ko am ku ci xoss am rek na xamne legi wala sax ka waru naq sax kawaru naq moom it tegtale ci ñaari ñëpp muy góor ak jigéen ko ci xam ne sax nga kawaru naq rek na nga daal di xam ne léegi kàllafe nga kon loolu mooy tegtali kàllafe yi nga xam ne ku ci am benn rek daal di war a farlu bu baax a baax te soppi ko te xam ne léegi tàmbali ni laa bindal tuyaaba tàmbali laa bindal bàkkaar hmm. loolu nag mooy muqaddamatu bi mu waxoon ni moom la bëgg a ubbi ko téereb tawxiid bi foofu la yem bu ko defee mu daal tàmbali nag téereb tawxiid bi ci boppam